en tout cas Habib Niang day ak Abdoulaye Dieye ca waaw ñoom daal ña nga ca ndaw ya ak ca jigéen ña Ousmane Sonko day ci source a waaw nee na bis nga xam ne laay nekk président de la république lii du dëgg maa wax lii 1000 francs la doon jox at bu ne naan somme symbolique déggal ma lii rek terminé yéene dëgg la de dama ne la autoroute à péage day waaw ndax yàlla waay ña ngay fay nag léegi nguuru Sénégal gi la juróom ñetti téeméer ci ay millions laa wax at bu ne exclusive yéene kaay de léegi kay gagnant gagnant la la waaye lii dëgg tamit day terminé yéene mooy gis nga wàllum gi ah wàññeeku na dee dëgg la waaye cat li nag ci Sénégal gi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ci dee allahu akbar daanaka ci ay doomu aadama laa la wax mille morts inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yéeni kaay dee ma jaagi ne lu jëm ci wàllum garab gi nga xam ne wala pikiir bi AstraZeneca bi waaw lëf la dama ne la mbiré de parce que kilifa ci boppam kon fañ ne kon juguñu fa ba léegi ne la dee dee dee docteur Mamadou Ndiaye nee na scientifiquement waaw amul dara lu tegu ci kaw taabal ji lée luy wane ne mbir mi kon day def ay effets la soleil yéene kaay ne moo tax it agence européenne du médicament waaw ña ngay def ay enquête kon ca mbir moom eh le témoin yéene kaay ne waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ay borom yi xam-xam ñu nekk ca ministère de la santé googe nee nañ nguuru Sénégal gi dana continuer kon di jëfandikoo AstraZeneca googe en attendant organisation mondiale de la santé kon di ca wax termine yéene kaay ne waaye auto politique ba tam taa yëngu na dee lool dama ne la gaa ñaa ngay président Macky Sall mi lée waaw waaw dama ne la xoolal démb Ousmane Sonko mi lée daal dinay seeti kon Khalifa Sall moom Khalifa Sall moomee waaw nee na ñun bu ñu jugul woon jàppale Ousmane Sonko mi lée bilaay dinañu ko réccu dinañu ko réccu laala wax Khalifa Sall waaw parce que fii ñaata opposant ñoo dugul ci kaso bi loo na tuuru saa fii Dakar Times de Sonko Khalifa Sall moomee d'accord nañu de d'accord nañu de na dema dema dem moom Khalifa Sall moomee ci direct waaw nee na calendrier bi ci boppam kon dañu koo war a respecté 24 heures yéene gis nga élection locale yooyee waaw dama ne la population bi ci boppam ñoo sentirul seeni loxoy maire ci lu jëm nag ci wàllum yokkutewu seeni gox dëgg la parce que ñi gën a bëri ci suñuy maire amuñu benn lecture ci lu jëm ci wàllum koom-koom gi lée lalu ci seeni gox tribune yéene kaay ne gis nga coowal Ousmane Sonko bi lée waaw que xoolal ma Khalifa Babacar Sall Guy Marius Sagna Karim Wade ak ñeneen ak ñeneen ñu daal di leen xañ seen ak ak seenu yelleef jël leen tëj leen ci kaso bi lée ci lu ju tegul fenn nag laa la wax jaay doole am na ci geneen wet ga day ñoom Mamadou Diop Decroix Abdoul Mbaye Alaaji Malick Gakou Thierno Alassane Sall Déthié Fall Barthélémy Dias waaw ña ngay organiser wu ngir taral xeex bi ci kaw Macky Sall laa la wax waaw mbir ma jeexul de déedéet parce que ca geneen wàll gale bugaan ngay moom ma nga jël léppam lal ko ci wàllum social jël ay millions diggante Ndakaaru Njaay jël Jóob ak Ziguinchor ndoofaan gale ngir jàppale njabootu ñi nga xam ne ñoo loru ci manifestation yi manifestation yooyee libération yéene kaay nee na am na benn xale boo xam ne bala lañ ko dooroon day mujj naa dee allahu akbar ca bi ñoo na la ah lay wuyoo xale ba day mujj naa wuy ji na ci booloo de opposition bi parce que day dëggal nañ yoon wax Le Quotidien yéene kaay ne gars yi defar nañ benn projet Ousmane Sonko Khalifa Sall ngir ànd defar benn front jàkkaarloog Macky Sall mi la waaye daa ni gars yi jubóowuñ ci élection locale yi de Ousmane Sonko daa bëgg ñu dem ca élection locale yooyee Khalifa Sall moom dafa bëgg ñu defar fichier électoral bi ba pare Ndiaga Sylla day waaw élection locale 28 mars bi la waaw nguur gi bu ko naree a day dana defaraat beneen projet de loi laas eh. Ousmane Sonko day waaw daal dinay yokk nag la ci parce que njiital ba sem nee na ñun amuñu problème ak France te déedéet waaye Macky Sall moom na ko leer ne bu jugaatee day mooy gën a miti lim fi dundoon dama ne la ñaareelu vague bee nar a gën a tax su dee su Sall liñ ko sant ni defu ko critique yéene kaay ne Ousmane Sonko day ma ngay yëngal nag ñaareelu yëngal gësam bu ñu génneewul ñu nekk ci kaso beeg yooyu dama ne la Ousmane Sonko ci bëgg suba bi la deuxième vague risque Macky Sall yi ñoo ci xala yàqu rek boog sobi ne manifestation yi ak yàq alalu jàmbur yooyu day Alioune Sall naqarloo na ko de rako Macky Sall bi ci boppam ne mais amul benn sens yàq ay bërëbu nguur gi yàq ay kayitu juddu certificat de mariage am ci ñoo xam ne seen bopp day tourné ñu traumatiser leen Alioune Sall ne mais loolee amul sens l'observateur ne pourtant ginnaaw na nooy na nooy na nooy waaw teewul Macky Sall ak Ousmane Sonko day ku ci nekk ku teg de bu ñëwee gën a def lu gën a bon Malick Siré si ci exclusive yéene kaay waaw nee ko mais gis nga monsieur le président gars yi lay kàcce de waxuñu la dëgg de parce bu ñu la dëgg de dañ lay nax parce que si sa nguur les scandales fonciers yi gën a bëri laa la wax te gis nga monsieur le président dañ lay kàcce waxuñu la dëgg koloon duñ la bàyyi ngay tànn ay magistrat ca cour des comptes gële te loolu musul am te gis nga monsieur le président sa gars waxuñu la dëgg généraux d'état waaye 2012 ba léegi ni la yow yaay tànn te gis nga monsieur le président waaw mbir mi nekkul tabax ay autoroute ak ay terre waaye yorin gu sell lañ la wax yéen kaa gi ne coowal Sonko moome ak Adji Sarr mais xoolal Pape Samba Sow avocat ba nee na fukki fan ak juróom laataa dossier bi éclaté day man recevoir naa Adji Sarr di ko conseillé yooyu Samba waaye bind lu ma ko plainte ba direct news ne directeur général SICAP day Mamadou Kassé ginnaaw mbanang ah ci lu secteur de l'habitat bi le borom Tambacounda day moom sëñ bi kase nee na président Macky Sall ci boppam révolutionné na wàllum habitat googe waaw tribune yéene kaa ne waa des médias day door nañu mise en demeure waa CNRA ngir ñu indi ay gindi na ci lan mooy ndey ñu tëjoon télévision bi le bugaan ngay dani day PDG des médias waaw nee na Babacar Diagne lan moo tax kon nga jël yoon wii nga xam ne bindoo yëgaloo tëjale baax na nga amee kattan googee nag ngi nit lañ amee ab kattanuk bindu kalaamee legal day léegi ñu akbar laa ilaha illallah tribune yéene kaay ne juróom ñoo faatu kon démb laa wax ñeent fukk ak ñaar ñi ngi taas bu ñu sukkandikoo ci docteur Mamadou Ndiaye lu tolloo juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay doomu aadama ñoo faatoogum laa la wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te jamono joojee nga xam ne nag maanaam corona gi day ah day tere ay mbooloo yu daje le soleil yéene kaay ne benn fan ci mars 2021 gii xayma bi nga xam ne doomu aadama de lañ tëj ci biir kaso yi onze mille cent trente neuf détenus allahu akbar tribune yéene kaay ne jàppal ni góor ñi day juróom benn junni ak fanweer six mille trente hommes la waaw téeméer ak juróom-ñett ci ay jigéen juróom benn fukk ci ay mineur lañ ay xale yu ndaw dama ne la te loolee kat lu tolloo kat mille neuf cent quarante et un yoo xam ne jàpp na gandiku provisoire lu tolloo juróomi téeméer ak fanweer ci ñoo xam ne kon ne waaye réseau ay bandee policier yi day maar di taali ko yéene kaay xanaa xamoo leen ne nañ ci sax loxo policier mu waay sàcc pistolet ba teg ca jàpp nañ ca ñaari xale ay kon nga xam ne nag mooy ndeyu mbilli gi te dawal pistolet policier ba day ñu ngi koy wër kenn gisu ko ca jamono jooje sur quotidien nee na nag plateforme bi politique bi waaw ngir jàkkaarloo nag ak président Macky Sall mi lé cay front ba cay front ba la leen xaar ak bari Maurice Soudieck John waaw nee na force yi daje day tax koo jug dee déedéet sénégalais yi daal fi mu nekk nii ku fi indiwaat wàllum démocratie ak yooyee la ci ñoom te sénégalais itam dofuñu bu heure tànn jotee danañ xam kan la ñuy tànnal yéeni kaa gi ne en tout cas lii de occasion bu rëy rëy ngir dóor Macky Sall ak nguuram gi lée ñu daal di wàcc occasion bi kay bu leen rëccee ñu dee rawatina nag ci wàllum élection locale yi ñu jëm ak élection député yo 24 heures yéeni kaa ne waaye Sénégal est-ce que am na amiral bateau ce que am na ab commandant réew mi daal fi mu nekk nii dafa xam ne nit ñi jànn xëy ba maar ah waaw parce que nag yow dañoo mënta toog ba ay kër daanu ci yenn ci askanuk Sénégal gi lée ñuy doog a jugoo yaay naan dañuy jéem a contrôler béton beeg ciment beeg matériel de construction beeg te kër ya daanu nañ ci kaw nit ñi ba pare dégg nga yéeni kaa gi ne dama ne la dañoo mënul xaar ba éme manifestation yu rëy yi nga xam ne kon ñoom ñoo fi amoon ni lée ñuy doog a jug naan dañuy def ay programme ci ngir ndaw yi am liggéey entrepreneuriat ñeng ñeng ñeng patiti patata exclusive yéeni ba mu dégloo ndaw yi ba pare day waaw ma ngay doxal waaw parce que lu tolloog ñetti téeméer ci ay milliards la teg ci taabal ji lée ngir wutal xale yi liggéey waaw loolu weesu la déedéet terminé rek ané en tout cas day waaw mi ngi woon dee média gale ni ki kon démb seeti woon journaliste yi ak waa kër ga njiital Pastef di Ousmane Sonko ne xam nga presse bi di taskatu xibaar yi bu ñu leen attaqué day waaw sama cër tamit mooy ma dem mastawu leen bokk ñoom nag tiis wi ñu am le quotidien yéene kaa ne waaye Ousmane Sonko ak Adji Sarr mi nga xam ne kon ñu ngi continuer di wax waaw Sénégal gi yëpp ñu ngi leen doon xaar ca tribunal ba lée waaye Ousmane Sonko ak Adji lal nañ procès verbal ba ca ma dee l'observateur ne ana le secret de l'instruction Ousseynou Samba jàngalekat la ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bale waaw nee na Adji bu ko neexee wax Ousmane Sonko bu ko neexee wax ñoom maanaam loolee benn daan du lalu seenu ndodd avocat yeeg yooyee kay ak yenn ca acteurs ya koy tere waaye ki nga xam ne moo tuumaalaate ak ñu tuumaal article 11 ci secret de l'instruction boobee du dal seen kaw de comploté wala Ousmane Sonko comploté waa Macky 2012 day ak jigéenu Benno Bokk Yaakaar ba léegi ni lee nee daal na mbir mi leer na mbir mi leer bog sob li ne waaye Ousmane Sonko mi lay xanaa daa bañ a jàkkaarloo ak Adji Sarr ñu def face à face corps à corps parce que Adji day sabal na ko ndënd ko waatal de waaye Ousmane da koo sape Cheikh Tidiane Dieye bokk ci ñuy jàppale Ousmane Sonko waaw nee na nga seen stratégie bi day dañ koo bëgg a lal ci wàllum waaw mais nañ leen def test ADN rek wax ji jeex tak exclusive yéene kaay ne waaye nag gis nga boo bëggee dégg dëgg waaw Adji Sarr day wax xam ji moo wax barki dee boo njaay ni lée du dara Adji Sarr kàddu mi gàcceel na nit ñi di wax di bee di xam xamul fu muy def point xamul virgule dara ci ab dictée boo xam ne dañu ko ko préparé ne ko waxal lii indiwul ay preuve indiwul indice dara viol la wala rapport sexuel la dara xool journaliste yi ko mi ñëpp amul kenn koo xam ne xelam dal na ci Sénégal yëpp a dal ci kawam daanaka les éco yéene kaay ne journalistes yi nga xam ne kon nañ leen di song ak saaga ak yooyee Dakar Actu ak waa Leeral waaw appel day bu Ibrahima Lissa Faye daal dinay porté plainte na kii di prési Cissé Khalifa Rappeur Cheikh Metsu Metsu Karim Abdou ak Amadou ak X box boobu Badara Gadiaga day bu parti réew waaw bàyyi na soow de mar di tali dama ne la démissionné na ci parti réew mi laa lay wax ni la doomu allahu akbar Badara Gadiaga day waaw nee na a kon membre secrétariat national day ak cellule communication parti bi waaw jàpp ne man Badara Gadiaga bàyyi naa bàyyi naa parti réew mi bu a Seck ca jamono joo xam ne day moom soow Idrissa Seck waaw nitam yaa ngi koy bàyyi enquête yéene kaay nee na Macky Sall ci indiwaat na Karim Wade ak Khalifa Sall mi lé mbir maa ngay ñor de te Macky Sall nag loolooy njariñam de bu bañee rek moom dong mu ne fi ak keneen te bu ñu sukkandikoo ci société civile ba na loolee kon ubbeeku na ca Ndiaye Cissé ONG 3D waaw nee na président daal bu bëggee day daal di mën ca saasa direct news ne ndàmpaay yi nga xam ni kon nañu ko nar def nag ci transport bi administration bi lan moo sabab kon sakanal gu xóot gi ñu bëgg def nag ci dépense yi kaay ba jogoy fay bi ne la sabab lu ni day nguur gi ci boppam li muy dundee la Macky Sall kon bëgg a wàññi train de vie de l'état ba def daa yàgg les écoles yéeni kaay ne damay la cinq cent gi waaw léegi dix litres fukk bis bu ne police ak gendarmerie Macky Sall <laughs> <laughs> waaye Macky Sall de ak lu mu fi sakkanal sakkanal sakkanal sakkanal sakkanal sakkanal xaalis te waxuñu ci xaalisu pétrole bii deful dara parce que suul gaz du ko xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal